jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokki soose bi tey brassard rouge la takk kii mooy soose Ousmane Sonko muy Cheikh Bokar Mané muy kilifa di jàmbaar gis nga ko mu teg léegi di xaatim jërëjëf mbokki mi mbokki internet di bàyyi xel MPROD TV yi mbokki bi tey brassard rouge takk kii moom mooy soose bu Ousmane Sonko mu dëkk ca diggu Casamance dëkk ca xoolu Casamance di soose pire bi mu njëkk a ñëw fi nga xamante ni moom mooy benn côté ci Sénégal olofam tax koo lee noonu mais jamono jii macha allah waaye gis nga ko mu teg léegi yi xaatim ko nee na ma am na ci ñoo xamante nii am na lu war a xew ci seen jëmm yi te tey dinaa ko leeral kii jàmbaar la kilifa la borom xam-xam la Cheikh Bokar Mané Cheikh bi dañ lay bàyyi ginnaaw ba keroog élection yi bañ ne bennoo jël na yeewi jël waaye làmb ji tamit am na loo ci waxoon dinaa ci dikkaat mais balaa boobu nuyul ak askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi Cheikh Bokar. ñoo ngi lay mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala sarfil mursalina wala xawla wala quwata illa billah allah alil azim ginnaaw ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi nuyu ñëpp rawatina sa mbokk soose di la wax mbaajin mbaalu kóolu anakak mooy laalu mbaalu jay la mbaalu tantu la di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa ñu ngi lay fay Euh, Cheikh Bokar tey euh, bëggoon naa xam lan moo waral nga takk morso bu xonq bi ci sa loxo càmmoñ lan moo xewati waaw réew mi dafa bari lu fi xew bari ay xeex yu fi am seytaane yeeg dëmm yeeg jinne yëpp jóg attaqué benn nit te loolu xam naa ci biir émission bi dinaa ci leeral lu bëree bari bëri nit boobu kan waaw Iran Ndaw la dañ ko am dafa am xeex bu nekk ci moom boo xamante ni xeexu jinne la ak seytaane bu nekk ci moom te mu nekkoon ku baax doon défendre daara yi dina défendre alxuraan défendre ustaas yi te ma gis ne ñu ngi koy xeex xeex bu rëy moo tax ma génn am ay leeral yu ma jox bu fe bu yeewoo sax bu ma woo waaye naa joxe tegtal bi nga xamante liñ ko def yëpp lu koy toj dinaa ko def waaye bala ngaa joxe tegtal bi ñu xuus ci ñaan yàlla tuuti euh, bokk na ci bagage yi soose soose dafa maîtriser xaatim ñu ne soose yi dañoo maîtriser garab mais ci kaw garab yooyu Sëñ Bookar euh, dégg naa jamono ji yaa ngi def lu doy waar jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy leget yi leget yi benn bu nekk ak euh, la nga cee liggéey euh, tey bëgg naa nga ñëw ci leget yi bu ci nekk ak la nga cee def. waaw xam nga doomu aadama damay faral di wax ne ñaan yàlla moom du mës a yàqu. Mm-hmm. nit ki moom moo yàqu. Mm-hmm. wala li nga xam wéerut mm-hmm. wala li nga xam baaxut. waaye ñaan yàlla fa mu nekkoon démb ak barki démb mi ngi fa. xam fu mu sosoo ginnaaw wàllu xaatim moom ñëpp xam nañu ne Égypte la génne waaye gën ñëpp xam ne ijaaba ci wàllu xaatim ijaaba ci wàllu ñaan kenn raw ci soose rawatina làkkat ndax dañoo fonk salaatu ala nabi dañoo bëri lu ñuy julli ci yént yàlla muhammad bañ na ba suñu mag ñi wala suñu maam yi sax dañoo jël seen loxo yi di ko teg seen xaatim di liggéey ay salaatu ala nabi ay ñaar fukki junni pour xam-xam bi ñu am yàlla barkeel ko kon xam-xam boobu la ñu doon ci suñu maam ak suñu maamaati maam dafa bëri ay wute defaa nga gis sax ci wàllu ñuy ut ndam ci wàllu làmbar yu ngi gis ay lekket yi ñu bind xaatim loolu yëpp ci côté ba foofu lay jóge ci ëpp waaye lii lekket yi di indi ci jëriñ mooy am na ci lekket boo xam ne wàllu musluwaay rek lay dox day aar lépp loo xamante gàllankoor la mooy liggéey bu mooy sax boo xasee ba sangoo sax kenn mënu laa koortu jàpp la wala képp ku la euh, tëkku moom du ko nettali mhm. parce que niñ ko liggéeyee liggéey bu yéeme na leket bi du lekket yi sax nii rek mhm. dafa am fu ñu koy suul ay fan sulli ko am luñ ci liggéey mhm. ku ko am nga sangoo ko bépp liggéey bu nekkoon ci yow ak jafe-jafe dana te képp ku la xeex dana faatu aajuwul nag ki nekk bitim réew dana am leneen luñ ko ko liggéey ba nga xamante ni moom su ko jëfandikoo man lekket mën naa bañ a dem mais bu ko jëfandikoo ay li mbiram dana baax te yàlla dina dina bépp gàllankoor bu ci moom waaw maanaam lekket yi ñeent la yoo xam ne yu wutee am na boo xamante ni ci li muy dox mooy wàllu wërsëg wàllu ubbeeku boo xamante ni doomu aadama bi jafe-jafe xat na ko wala am amam du fekkante day yàqu wala loxo bi lu ñu dugg ci loxo bi mu tasaaroo am na ci boo xamante ni loolu lay njëriñ mm-hmm. waaw maanaam muy xam-xam yoo xam ne dafa wute ci lekket bi moo moom moo waral lekket di ñu koy liggéey mm-hmm. ñu nekk ci réew mi la ñu koy defal mais ñu nekk bitim réew xam nañ lu ñu leen defal ba nga xamante duñu am benn gàllankoor te dinañ jot xam-xam bi bu xam-xam bu set te yàlla dina ubbi seen mboolem buntu wërsëg gi mm-hmm. maanaam loxo jamono ji jamono ji métti la ci wàllu xeex ak ci wàllu nit ñi dañoo soxorante di def luy bon léegi nag doomu aadama boo sàgganee nag nekk ci yoon ba ñàqal la sa yoon loolu yow la nga yaay jóg jóg sa bopp kër sax dañ koy ñag dañ koy utal miir balaa nit du ko yàq tool sax dañ koy ñag boo ko ñagul juru yàq ko waxuma la jëmm doomu aadama boo ko ñagul day yàqu parce que am na làmmiñ yoo xam ne lu ñu tudd mu yàqu am na bët yoo xam ne lu ñu xool mu yàqu bu ñu la xooloo ngay tukki sax mu doon doo am jàmm kon nag doomu aadama du sàggane boppam ñaan yàlla musul yàqu xanaa moom lu yàlla xam doy na waaye man ku ñëw sama saaju saaju na faju ndax ñi fiy génn ñëpp kenn toll ma si catuwee waaw Cheikh Bokar am na nit ñoo xamante ne dañ leen yàq ba dañ leen a ci mbaax xam leen ci yiw mais des fois ah, ñu yàq leen ba tey jii seen àdduna dara du ci ah, baaxati ba ñuy génn sax di def loo xamante nii day leer na ñii ah, tayuñ ko ku ñu yàq lan moo ko mën a baaxalaat bu mu dikkaat ci société bi waaw dañ ne la nit ku la yàq sans dépend ci maqaam ba mu am loolu nit yàlla ñoo koy wax bu fekkee ne dangaa yàqoo ci koo xamante ni wàllu yàlla la il faut nguur wàllu yàlla bu ko màqaama moo la ma defar bu fekkee da ngaa yàqa da nga yàqoo ci xutbu zaman moom gisuma ko la ma defar defaree dafa am fu muy dafa am ci limite loolu nit yàlla yëpp ko nangu bu fekkee da ngaa yàqoo ci man jàmbu xel bi mun naa am keneen ku defar waaye boo yàqoo ci xutbu zaman gisuma ku la mën defar day maam yàq yi day dépendre ci benn maqaam moo nit di tooñ wàllu yàlla kenn tooñ wàllu yàlla ku tooñ dafa ñoo xamante ñoo tooñ wàllu yàlla wala seen mbokk yi tooñ wàllu yàlla wala seen maamaat yi maam tooñ wàllu yàlla dañuy ne ci jafe-jafe yoo xam ne lu ñu xam jafe-jafe tas wala ñu jëw si boo xam ne bu set wecc liggéey ko yàqal ko àddunaam wala am nañ ay xam-xam koo xamante ni jafe-jafe bëri na yàqu-yàqu yi bëri na buñ gisee incha allah am nañ ci xam-xam ci yoon xalwatu amul lu mu defar man sama xalwa ñetti fan dama ñala sama seet sax moo raw xalwa ñetti fan yi gars yi def ah. laa wax xalwa buy bépp sëriñ buy def sama seetu ñetti fan sama seet man ma génne la sarax moo raw xaloo bii bépp sëriñ bu muy def parce que sarax yi muy génne day tolloo xaloo ñetti fan waxuma la ak man ma ñaana la yàlla waaw gars yi daal li ma la mën a wax mooy sëriñ sang fi ba léegi moo tax man sama génn bëriwut ndax euh, xam naa ne du ma ne ñëpp xamul dara am na ñu xam dara waaye dafa bëri ñu yàq liggéey bi waaye nag euh, loolu it euh, liggéey boo gis foo dem noonu la mel rek foo dem foo dem rek àdduna bi loolu am ku nekk na baax am na ñu loolu moom fépp la ñi du ñëpp mën a togg sax waaw loolu moom dëgg la <laughs> mooy ko kër yoo xam boo fa añee rek xam ne togg daal am nañu ko ma la doomu aadama yemuñ maanaam nit kii du tayal ci ñaan yàlla mm-hmm. waaye man képp ku ma defal ñaan yàlla danga dina bo da nga ne balaa ñetti fan nga xam ne nit yàlla téye na la tey yéen soose ñu ngi leen di bàkk ci euh, xëccoo ñu ne soose tamit dafa mën a xëccoo bokk na ci làmb tey euh, da ngeen daan gis mbëri soose yi ñooy faral sax di ëpp ci li nga xamante ne mooy ndam combat Balla Gaye bii euh, passé gis nañ ne soose yi tamit dugal nañ ci seen loxo bii yoon parce que dañoo demoon ba ne euh, soose bi tey yàqu na ci làmb boobu nag askan daal di dugg xol yi daal di sot ngeen jàppal Balla Gaye ay tànkam ba ku ne xam ne ne dernier moment combat bi ñaan moo ko daan waaye mbirum xëccoo. waaw amuñ ci morom. parce que dañoo am gàllaaj gàllaaj dëgg ñi ko bëgg ñëpp ñi ko bëgg dëgg laa wax ñu bëgg gàllaaj moo xam mucc moo xam paaka du la dugg moo xam fetel du la dugg moo xam li mag ñi doon waxee ni mu nekk maanaam nga nekk nit euh, kenn du la gis kenn du la gis mën ngaa takk som nomba yi kenn du la gis waa yooyu gàllaaj yooyu gàllaaj cosaan la wàllu xëccoo nag il faut nga nekk il faut nga xam dëgg-dëgg loo xamante ni say maam ak say maamaati maam ñoo la koy jox garabu guy ci lañ koy liggéey ci reenu ci lañ koy liggéey. doomu aadama bi nag bu fekkee ne xamul tegtal duñ ko wax dañuy junj rek. guy yàpp ñëpp jàpp nañ ne garab la boo xamante ni bokk na ci ni ñuy waxee buuru garab yi. waaw guy mooy buuru bépp garab. waaw bépp garab comme ni ñuy waxee gaynde mooy buuru euh, àll bi. noonu la guy mel ne léegi ci guy googu nag ci lañuy liggéey am na ñuy liggéey. ci loo mënti xëccoo yaayam yaayam ndam. moo tax man mbiri xëccoo dama naan du ma ne maa fi raw waaye ñi ma jëflanteel dañ xam seen bopp ñu ngi may seetaan xam nañ ma xam nañ ma. xam nañu waa ji moom macha allah. waaw am na loo xam ne ko wax. am na si koo xamante ni dafa ma ko nit dafa ñëw sama kër mi ngi may seetal wallaahi azim sama kër gi dafa am ku fi ne mënu ma ko génnee ma sa ko ñetti këriñ laa ko jox ñetti këriñ. ne ko dugal ko fi ba mu ko dugalee même pas trois jours ñu génn ko. balaa ba rek alxuraan. mais Cheikh Bokar tey ñu bëri tooj nañ leen tëj leen ci kaso yi loolu tamit doy na waar de am na ñoo xamante ni ña nga rëbës gee te seen i mbokk sax talatuñ leen ñii sax do seen i yi fàtte nañ ko gàllaaju kaso waaw dafa am doomu aadama yoo xam ne jamono kaso moom lañu wax ne euh, benn côté nit yàlla yu bëri jaar nañ ci. am na ñoo xam ne seen bidiw moo moo laaj dugg kaso. Mhm. par force loolu dañ ciy waxtaan dañ ciy waxtaan. Mhm. am na ñoo xam ne defuñu dara nañ leen. Mhm. gis ngeen ci yàlla Yusuf. na fa. am ay nit yàlla yu bari yoo xamante ne fii gis na fuñ jaar. maanaam dafa am lu yàlla di namm si ñoom jaar fa ne ñëpp waaye am nañ gàllaaj gu may liggéey ci wàllu reen. ci wàllu ren laa koy liggéey ren gi nag lu koy liggéey mooy fas boo gisee yi muy yëy yëy yëy da ngay defaat am yu muy bàyyi wala buy mar da nga gis am yu wadd ci yooyu lañ koy liggéey ku ko am gàllal ba du kaso am na saafara bu may bind ku ko naan du kaso waaw am na benn xeer bu may liggéey bu ko see sa bëñ laalu ko boo ko lekk du kaso galaj kaso am na waaye nañ nangu ne kaso ni képp ku fa nekk newul da ngaa bon rek ñu bon ñaa ngi fa nag waaye ñu baax ñaa fa am nañ gàllaaj yoo xam ne incha allah képp ku ci jëflanteel doo dugg kaso Euh, Cheikh Bokar tey élection yi passé na euh, député yi séddoon nañ ko euh, Yewwi ak Wallu am nañ 82 Benno am na Yewwi ak am nañ 80 Benno am na 82 kon benn rek moom la Benno doon xaar te benn ba jaay ñeneñ du ñàkk am ku dem mais élection yi xam naa ne mystique bi bëri woon na de ci côté diggante Sonko ak waa APR yi. waaw man amu ci woon jot. waaw ah, man ku ma xam-xam sama digganteeg. dégg naa liggéey nga ci liggéey bu am solo. waaw sama digganteeg gars yi <laughs> waaye li may wax rek dafa am lu ma la waxoon daaw xaw ma daaw jéeg xaw ma yaa ngi koy bàyyi xel. Mhm. xaw ma bàyyi ko xel boobu wax jafe na. Mhm. wala boobu kenn ñemut a wax. mars aji sar waaw kon xam nga ko. Mhm. vidéo yaa ngi fii ku ko a seetaan nga ko seetaan. dama ko teg loxo. moom waaw dama ko teg loxo. Ah. waaw dama ko teg loxo. dama du ren. du daaw yaakaar naa daaw la mars. xam nga daaw jéeg boobu laa ko teg dama ko teg loxo. te man su ma jëlee sama engagement ne nit teg naa ko loxo nit daf may envoyé message wala nit di ma oo ci bitim réew bu dara xewee ci mbiram. man leen dalal seen xel li ma waxoon démb sama waxul démb mooy sama waxu tey ñu ne sëñ laa gën a gis te ñuy wax ci Sonko te yow la ñu xamoon démb. man leen man sama wax benn la wax naa ko du ma dëpp ci li ma waxoon mukk. waaw ki ñu teg loxo nag waxuma leen damaa xam lu ma wax te li ma wax day am dégg. xam naa gëm nit ñi ko gëm bëriwul mais li ma wax dafay am. waaw ah. ah, waxoon naa. yaa nga fa nga nekkoon Sonko day nekk président 2024. def naa ko pare. si 2024 yàggatul de. te VAR dafa garaaw de. ah yàlla baax na man mosuma dugg VAR benn lañ fi jéem a dugal VAR moo xam ne Coupe d'Afrique bi sëñ bokkam yëre bi laa soloon nii ki saan ko saan man leen Coupe d'Afrique bi suñu ma woowee dañu jël sama bakkan dañuy jël coupe bi. ñu dagg wax ja ñu dagg dugal loolu dugal nañ ko waaye xam nga ko demul baax. ku ko def lan moo ko ciy fekk ki parce que dégg naa da nga ay xeeti gàllaaju xeex yu garaaw ka jëf-jëf jooju. gis naa ay man ay ay man ko jëf ak man sëñ bi ci saa si laa lay yàq. pour ko def loolu moom doo ko déggati. gis naa sa ñaari nit ñu jàppante ci ay plateau temps yi. ma reer man leen kenn gis naa kenn ki di tëkku nit après man ko fa nga koy tëkkoo dafa yéex fa toog nga ko woon sànni koot. Ah. ah waaw. yoo xam-xam yooyu dégg am na. xam nga mbërëng dey wala xamoo mbërëng day. mbërëng day ok. <laughs> dégg dama ko xam. dama ko xam nag. da ngeen a maîtriser gàllaaj yéen Casacien xam moo tax kuñ jàpp du rëcc kuñ noob du rëcc. Mhm. benn fan laa koy def. morceau bu bii ngay wax. laa koy defee. ku ma nopp ku ma neex xanaa ku ma ñaanlu mais képp ku ma ñaan nga gis de képp ku ma ñaan nga gis su ma neexee ma dem ci lu ñuul kukk lu ma def nga gis ko. Hmm. waaw nopp laa wax ci benn fan su ma neexee ma def ko. kon mën nga ci bii boor mën nga ca bee boor. ñaar xam-xam yëpp laa jàng dégg waaye noppi nag tee di di dawal euh, nooraanee bi. yoo leen la sëñ bi ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy mbirum euh, Iran Ndao euh, Iran nga ne. dëmm yee ko jàpp. ah. ko jàpp. te dinañ ko bàyyi ndax nit kuy xeexal daara ku sonn ci daara feebar bi dina ko dikkee diggante saan jëm guddi. yaram bi di mel na lii liw bopp bi mel ne luy métti na ut nag bu ñuul kukk def adadu jàlla boo ko calculé mooy 33 def ko 333 saam sarax ko bind 33 tabat yaddaa bu ma woo mu naan ci sangu mu jóg doxi soxlaam bu ko defee wér ko jàpp ñu bëri yaakaar loxo la loxo la waaye loxo si dañ ko jaara ci nitu guddi na fexee jóg ci boppam ñun kuñ ko kuñ kuñ kuñ sopp la ku ñu bëggal nit ñu feebaree ku feebar mooy taxaw faj la kon kooku lu ñu seetaan mu yàqu. social yu bëri. waaw dafa nekk nit ku baax. tëj nañ fa ay nit mu tëj leen. waaw lu téeméeri million. kooku nag ñu bëgg a sàggan duñ sàggan de man na bëgguma sax mu woo ma nañ partagé ba mu yegg si moom mu def li ma ko wax. bu ko defee jug ci saa si. su ko defee taxaw seen TV gii. day jóg yeggale émission day jóg bu ko neexee mu ne sëñ Bokar léegi moo waxoon am na wala li ma waxoon amut maa ko wax lii na def loolu nag bu ñuul lay jël rey ko. génn ci 30 33 saam bind 33 tabbat yadda damay gaaw a joxe secret boole ci xasum xay mun naan ci sangu ci benn fan ñu bàyyi ko. ay ci kon numéro téléphone Cheikh Bokar Mané mi ngi noonu affiché képp koo ko ci woo rek di nga ko jot Cheikh Bokar ku bëgg jëkkër. waaw loolu li ma koy liggéeyee dégg yomb na waaw ci inna anzalnaahu laa koy liggéey rek. Mm-hmm. xanaa su ma la ko defee ne man par force di nga am jëkkër. Mm-hmm. par force di nga am jëkkër. waaw man wàllu jëkkër wàllu ku am te am doom ak yooyu su ma la ko defee boo gisee boo gisee mbaax ba pare ngay naan saafara bi soo naanee saafara bi di nga jël ëmb incha allah waaw. am na solo te it am na yeneen yoo xamante ni ci wàllu bitim réew xale yi nga xamante ni dañuy indi jafe-jafe seen seen seen waajur yi yooyu it li ma ciy liggéey dafa yéeme. Mm-hmm. waaw liggéey boo xam ne du paase saafara yoo xam ne su ma ko liggéey du paase ñetti fan mu normal. Mm-hmm. waaw wàllu yàlla daal sëriñ bi am na. xanaa kay nit ñi ñaan lool lañ xamut ñan la waaye ku fëgg bunt bii sa àjjana faj incha ñu ne liggéeyu ndey bitig la ku leble perte sa yaaya la tooñ ku dem dem mënoo dem sa yaay moo jàpp ci say tànk gësëm la euh, nga wadd ah, kon teraa ngay àdduna bët la waaye coow laa nga yomal xeyam sëñ bi ah, tey am na ñoo xamante ni ah, seen diggante ak seen waajur ay ñagas ñagas da ciy nekk ba dégg naa. bu ñu gisee lu baax sax duñ ca jublu te am na ñoo xamante ni gis nañ sëñ Bocar mu leer leen ne sëñ ku mën a ñaan la waaye duñ ko woodee parce que seen ndey liggéeyuñ sëñ Bocar dégg naa ko sa numéro woo la tawféex la ak ndam ak ndey ju liggéey moo koy tax a def. waaw xam nga euh, doom bu liggéey ndey bu liggéey noppal doom waaye nag am na ñoo xamante ni peut-être seen ndey liggéeyul waaye il faut nga dégg nit yàlla. Mm-hmm. da gis ñu mag ñi xam ne seen yaay sama soxna sii kat. dañ ma ne liggéeyul kii liggéeyu fi lu fi war a amee doom ju baax ñu futteeku nit yàlla buñ xam ñaan loo yàlla nag sama doom kat bëgg naa mu baax ñu ñaanal ko ñaan yàlla moom mooy mooy régler bépp bépp jafe waaw ñaan yàlla parce que yàlla moo gi moo moo bind ay yoo xam ne doomu aadama ba même bu wërsëgam xatee am na tur yàlla ba mu méngool pour wërsëgam yaatu hmm. moo tax yàlla indi baasitu hmm. yàlla ba bëggee wërsëg mu indi razaaxu ubbeeku muy ni fattaahu waaw kon doomu aadama yi léegi nag nag lan lañ koy doxalee ba mu dox fa la problème bi nekk moo tax jàng asaraar baax parce que bu fekkee jàng asaraar ci ngay mën a xamee doomu bi dafa am ay xam ne ay ay yoo xamante ni ci wàllu fàttoo lay mm-hmm. nag doomu bu fekkee wërsëg lay ñaanlu nga xool tabiyaam xam fu mu tollool waaye le mi ngi si jë ban loo ko bindee ban aaya bu mu tollool boo calculé turam xam turu aaya bi nga dagg xaati mi mm-hmm. foofu la jàng asaraar baaxe mais man des fois sax bu ma bëggee mu gën a gaaw lu ma def boobu am naa bu gaaw gaaw gaaw boo xam ne su ma ko liggéey nga ubbeeku soo bëggee alal am alal léegi-léegi jooni jooni waaw yooyu am nañ ko am na bu jooni jooni tamit bu ñu dégg ne yaa ngi ci kàttan waaw wàllu kàttan nag sëriñ bi ma ci morom mm-hmm. waaw wàllu kàttan am na lu may liggéey ci guy laa koy liggéey nag maanaam ma na bu ci guy waaye naka lañ ko jëlee ci guy nit ñi xamuñ ko ah, waaw bu fekkee ne dangaa gaaw yegg incha allah moom di nga sant yàlla mën ngaa def 40 minutes. maa la wax loolu. waaw mën ngaa def bu fekkee ne da nga am problème mu jóg am na lu ñu koy defee waaye moom li ma la mën a wax mooy wàllu kàttan xam naa ci loo xam ne ci garab guy. képp ku ko jëfandikoo am naa yaakaar boo xëyee suba dootoo naan dootoo naan garab gi. waaw dootoo ko naan waaw. Cheikh Bokar lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci impératif. ne nañu bàyyi Iran daw. Mmh. ñi ko jàpp nañu ko bàyyi. sëñ bi nee na sëñ dugg la ci yëf man kuy défendre daara kuy défendre ku feebar nga faj ko man ku lay xeex man ma ma ma maa ngi ànd yow xet ko xeex ah te loolu dañ ko bàyyi incha yàlla na ko yàlla may wér jëlal ko sagom nit ku baax ku mën a taxaw diine ku ma taxaw daara yàlla na ko yàlla may wér loolu lañ koy ñaanal jërëjëf Euh, mbokk yi dégg ngeen waxtaanu am solo wi kii nga xamante ni mooy Serigne Bokar Mané waxtaan ci suñu frère boobu di Iran Ndao di nit ku baax di jàmbaar waaye di kilifa euh, di koo xamante ni diine wax dëgg yàlla lim ci def euh, bëri na. tey sëñ Bokar borom xam-xam la waaye nitu Casamance la Casamance boo ko tuddee xel yëpp dem ci cosaan boo nee Casamance xel dem ci aada waaye boo nee Casamance xel yi dem ci li nga xamante ni moom mooy xam-xam. ñaar yëpp bu ñuul bi ak bu weex bi waaye soose mbokk yi bàkk nañ ko ci xaatim da koy toog ah soose la aycoon numéro téléphone sëriñ bi mi ngi noonu affiché ci suuf ecran bi képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD yi yàlla ngeen bëri jàmm ci darajey Muhammadu Rasulullah